ndax chaîne bii di Bawal info officiel dafa am ay internautes yoo xam ne dañu see abonné doy ñu di taataan xibaar yi ñu leen di jox kon am nañu sañ-sañ bu mbir xewee ñu def ci ab gëstu wut ci ay xibaar jàngat ko askan wi mën koo dégg bu paasee loolu nag li ñu leen di wax kenn ku nekk naka déggee ak xelam ba pare indi xelam càmbar ko na lu yanu maanaa la wala lu yenuwul maanaa ndax yàlla suñu borom dafa ne boroom xel yi laay waxal kon moo tax xel dafa nekk lu am solo ci doomu aadama te nit su waxee tamit danga koy dégloo ak sa xel càmbar bu baax lim la wax tey nag mbokk yi ci li nga xamante ni ci la bawal info point net bëgg a ñëw mooy contrat bi nga xam ne dafa dox diggante Senelec ak Akilee mu nekk contrat boo xam ne li ñu ci gëstu ak xibaar yi ñu ci taataan dafa nekk loo xam ne dafa doy waar catastrophe la baaxul ci réew mi baaxul ci Senelec baaxul si ñuy liggéeyee Senelec bawol info point net nag site bu nekk fii ci Touba waaye def nañ suñuy gëstu ci ay syndicat yu bokkul yu bari nekk seen lekk ñu jokkoo ak ñoom téléphone def ak ñoom ay émission waxtaan ak ñoom laaj leen lu mbir mi demee ak yeneen gëstu yoo xam ne def nañ ko ci mbir mi mais contrat bi nga xam ne moo dox diggante Senelec ak Akilee moo doy waar genn xeetu doy waar goo xam ne sénégalais yi dañ ko war a xam ci nii wala ci naa te lii nekkatul sax maanaam yëfu syndicaliste wala ay agent Senelec wala sax ay mbirum directeur général ak wala lum ci mën ne doon lii yëfu askanu Sénégal la ni nga xam ne moom la sénégalais yépp jóge di xeex coronavirus moom la sénégalais yépp war a jógee ngir xam contrat bi lan moo ci nekk yitte jooju lakk ka yi war a may ndax sénégalais yi buñ defoon yitte ci bépp contrat bu ñu signé ci réew mi nëga kon Sénégal passé na fii ba tax sénégalais yépp ñoo war a sàkku contrat bi leer sénégalais yépp ñoo war a jàppale cadre Senelec yi nga xamante ni dem nañu OFNAC dem ARMP dem inspection générale d'État dem cour de comptes saisir leen bind leen ñu jox leen réception wan leen ne leen jot nañ ci seen lettre kon corps de contrôle yooyu ñoo am responsabilité ñëw biir Senelec càmbar contrat bi déglu ñi nga xamante ni tey ñoo ci laale ngir askan wi mën a xam dëggi-dëggi lan moo nekk ci contrat bi ñi ñu si war a teg ay daan ñu teg leen si ay daan contrat bi ni mu demee ak li ñu leen ci mën a expliquer dafa am benn syndicat bu tudd Sudaten Alassane Ba moo ko jiite ñoom 2018 dañoo yëg contrat bi bi ñu yëgee contrat bi ñoom ñu dajee ci seen biir waxtaan bi ñu waxtaanee daane contrat bii kat ñuy dégg ñu ne Senelec ma koy signé ak Akilee dafa doy waar ñoom bi ñu defee seen réunion waxtaan ñenn ñi ne comme ñun dañoo yor syndicat boo xamante ni du politique te boobu 2019 léegi tey mu dugg te bu ñu waxee mbirum contrat bi état bi mën naa jàpp ne dañuy parparloo dañoo bëgg opposition bi jot si wax ji pour daaneel Macky Sall ñoom ñu ne nañ neutre bàyyi ba élection yi jàll ñu xool contrat bi lëmbat ko dox si liñ si dox ñoom Soudaten xalaat boobu lañu jëloon moo taxoon mbir mi ñoom ñu jël ko teg ko ci suuf léegi am beneen syndicat bu nekk biir seen Senelec bu tudd Sutelec Sutelec googu ñoom bi ñu yëgee contrat bi dañoo dem ci maxtar Cissé mi nga xam ne moo ko jiite woon Sénélec ñu ne ko nag contrat bi nga xamante ni moom la ñuy dégg diggante Sénélec ak Akili dafa doy genn xeetu doy goo xam ne mën naa yàq Sénélec mën naa yàqal réew mi Makhtar Cissé na leen yéen ñi nga xam ne yéen a jiite ay syndicat da ngeen di ñëw ñu waxtaan. ñoom ñu dem dajee ci benn hôtel pin dajee ci benn hôtel. ak waa Akili ak syndicaliste yi di càmbar contrat bi syndicaliste yi wax Makhtar Cissé na ko contrat bi mënuñu ko waxtaan ci benn fan Makhtar Cissé na leen kon nañ def ab séminaire ñetti fan jàpp ñeent ñu dem sali waxtaane fa contrat bi ñoom noonu lañu mujj a def dem fi nga xam ne mooy sali waxtaane fa contrat bi waaye bi ñu demee sali syndicat bii nga xamante ni tey moo ëmb cadre Senelec gi ak Sutelec ak Sudaten dañu leen a laaj ay laaj bëgguñu indi leen ci ay tontu waaye ba jamono jii may wax ak yéen ngeen di ñu dégg Senelec indiwuñu ay tontu ci mbir mi Senelec indiwuñu ay tontu ci mbir mi. léegi nag liñ leen bëgg leeral mooy lan mooy njariñu ak li ak lan moo tax Senelec signé ak Akilee loolu lañ leen di leeral doo ko jàll ci leneen. Senelec da doon am ay perte perte yu baree baree bari jëmmi Senelec ñoom xamuñu lan moo waral perte yi te loolu sax avant Makhtar Cissé Senelec doon nañ càmbar ci loolu léegi Senelec bi ñuy perte xamuñu lan moo tax ñuy perte si la direction générale bu Senelec. dem jëli ab cabinet na ko yow cabinet bii dañoo bëgg nga càmbaral ñu Senelec ba xam perte bi fan la nekk perte technique la wala perte non technique perte technique mooy courant bi ni ñu koy toggee ba mu agsi ci post bi ba mu dem ci kër gi loolu mooy perte technique perte non technique mooy lu jëm ci mbirum fraude mbirum sàcc courant bi wala tey factures yi ni ñu ko bindee jaar na yoon wala jaarul yoon wala ni ñu relever compteur bi wala ni ñu installer compteur bi perte yooyu yépp la Senelec waxoon cabinet benn cabinet càmbaral ko ko cabinet boobu nag kii nga xamante ni moo jiita Senelec dafa bokkoon ci cabinet boobu bi mu bokkee ci cabinet bi def liggéey bi saytu ba xam mbir mi problème bi fan la nekkee ñu dem jébbal waa Senelec ne leen lii ak lii ak lii ak lii moo tax ngeen di perte ndax foofu la liggéeyu cabinet yam ndax léeg-léeg nit sañ naa woo ab cabinet na ko càmbaral ma sama société bi lan moo tax doxul wala lan moo tax perte am fi boo ko càmbaree ba pare comme ay expert lañ ñëw jébbal kayit yi ña leen doon def loo liggéey bi léegi nag ki jiite akili jamono ji dafa bokkoon ci cabinet boobu kon kooku déjà xam na lépp lu nekk biir Senelec am na sañ-sañ créer société am na sañ-sañ ñëw fas yéenee gagné ay marché ci biir Senelec comme ni ko àdduna bi yëpp yi defee ndax société nationale yi nekk ci adduna bi yëpp dañuy am ñoo xamante ni tey dañuy signé ak ñoom ñu leen di defal yenn liggéey loolu wax dëgg yàlla Senelec am na sañ-sañ def ko ak Akilee ci biir loolu nag contrat bi Akilee moo ëpp ay paar Senelec te li ñu doon gis mooy ki nga xamante ni tey mooy société mère bi maanaam ki nga xam ne mooy ndey mbili gi ki nga xam ne moo ami emploi ki nga xam ne moo exister ki nga xam ne mooy liggéeyal askanu Sénégal kooku moo war a ëpp ay part ci contrat bi waaye contrat bii akili moo ci ëpple Sénélec plus de soixante pour cent normalement Sénélec moo waroon a am plus de cinquante pour cent li ci des Akilee moom ko loolu la ñuy faral di gis ci société yépp wala contrat yu baree baree baree baree bare te ci contrat bi demewul noonu léegi nag marché bi wala contrat bi dafa jëm ci mbirum compteur mbirum compteur ci la jëm ndax euh, mbirum compteur yooyu sax Senelec xalaatoon nañ ci bien avant compteur yi ni muy demee mooy dafay nekk ay compteur intelligent d'accord naa ci compteur intelligent ndax àdduna nag nañ nangu ne buy dox da ngay dox ànd ak moom ndax xam ngeen ni ñu bari dañ doon déplacé wu dem Senelec di fay ñu baree bari defutuñ ko dañuy fay ak seen téléphone ñu bari dañu doon dem SD di fay yi ba léegi am na ko def mais ñu bari dañu toog fi ñu toog fay ak seen téléphone technologie moo toll foofu lu bari leen doon def doon déplacé wu kenn déplacé tut nit da déplacé ñëw ci rédaction di liggéey ak bind ay ay ay texte ak information kenn defatu ko nit day toog fi mu toog bind envoyé mail euh, rédacteur en chef bi jot si ñu def li ñuy def àdduna moo toll foofu ba nga xam ne biñ ñu proposé Sénélec ay compteur intelligent muy compteur yoo xam ne day méngoo ak jamono loolu tamit ñëpp d'accord nañ ci ndax compteur yooyu day tax Senelec mën a toog fi mu toog couper nit ki du jar kenn di déplacé wu di couper nit Senelec day toog fi mu toog xool ba xam am na fraude wala amul fraude Senelec day toog fi mu toog xool ci compteur yi ba xam nit ki ni muy jëfandikoo courant bi baax na ci moom wala baaxul ci moom xam ne su baaxul ci moom Senelec mën naa jokkoo ak moom naka yow kat sa facture bii lii muy tax mu yokk wala sa courant bi ni muy dem mënoon naa moins cher boo doxalee woon nii ak nii loolu mooy ay compteur intelligent ci exemple yu ma leen ci mën a jox compteur yooyu moom la Akili gagné contrat bi 10 ans la 187 milliards la mais li doy waar ci compteur yi mooy appel d'offre amu ci appel d'offre amu ci te c'est pas normal liñ si jot ni xibaar mooy appel d'offre bu amoon état bi mën naa jëndee compteur yii nga xamante ni tey moom la ak li proposé état bi amee ko moyen cher appel d'offre amu ci mu nekk lu doy waar beneen bi compteur yi fii ak fukki at compteur yii ak li proposé Sénélec mooy compteur yi fii nekk te ak li day wër Sénégalais yépp plus de deux millions de compteurs ak def fa ay am te fii ak fukki at moom la contrat bi dox Senelec amul sañ-sañ maanaam soppi compteur yi te njëg bi ku ko ak liy jaaye fii ak dix ans même njëg bi la yéen ñi may déglu xam ngeen ne ak xarala yu yees yi téléphone loo ko jëndee deux cent mille weer dootul jarati deux cent mille mooy de deux cent mille lay jar xam ngeen ne yéen ñi may déglu ordinateur loo ko mën di jëndee boo demee ay fan ay weer at dootu jar la mu doon jar frigo noonu télévision noonu émetteuru rajo noonu leneen ak leneen noonu ndax xarala yu yees yi weer wu jot dafay am lu bees lu ñu créer loo xam ne mooy gën a méngoo ak jamono dafay am waaye ak yi dana senale compteur yi compteur yu bees ñëw ak yeneen ak yeneen yii ma la jaay moom ngi utiliser dix ans te même prix bi la même prix bi yi ma la ko joxee nii fii ak 10 ans même prix bi la même bu doon yeneen compteur ñëw na sax compteur yi ma la jaay maanaam am li Senelec waroon na def mooy jaay nga ma compteur yi bu ñu demoon ba jëmmi jamono compteur yu yees ñëw yu méngoo ak jamono yu sophistiqué dañuy xoolaat njëg bi mais loolu amul ci contrat bi muy nekk loo xamante ni lu doy waar a doy waar la beneen bi ak li avant muy signé contrat bi dane yow Senelec yow la ñëpp xam yow Senelec yaa may garanti ci banque yi bañ nangu maa jox xaalis Senelec d'accord loolu ak li ne man Senelec su ma indee compteur yi ba port yow Senelec yaay jël fay transport bi yow Senelec yaay wut hangar boo def compteur yi yow Senelec yaa may jox personnel boo xamante ni ñooy installer conteur yi compteur bu am jafe-jafe yow seneleg yaa may booleek ku ko dem réparer ji maanaam loolu la Akilee wax Senelec te Akilee fi muy jëndee compteurs yi Senelec xam na ko te bu doon appel d'offre am na état mën na ko faa jëndee lu lu gën a yomb li ko Akilee jëndee te Akilee euh, maanaam Senelec moo koy garanti ndax Senelec mën nañoo wax ne mooy état mooy Sénégal yëfu Sénégal la Sénégalais yi ñooy garanti Akilee ci misaal entre guillemets loolu moo dox ci li nga xamante ni maanaam mooy mooy contrat bi mu nekk loo xamante ni lu doy waar la. léegi cadre yu Senelec nag dañoo dem ARMP dem Cour de conte dem IGE dem fi nga xamante ni mooy nag loolu ay corps de contrôle la yoo xam ne ña fay liggéeyee sénégalais yi ñoo leen di fay kon bu sénégalais yi soxlaalu leer dañu ko war a leeral xam nga man dama jàpp ne ci réewum Sénégal xam nga tey man fi may liggéeyee. su ma amee contrat ak sama patron loolu sama contrat la man la ak sama patron mais bokkul ak contrat boo xam ne Sénégal yëpp lay engagé man dama jàpp ne war nañoo am loi boo xam ne bépp contrat bu ñu signé lépp lu ca am Sénégal yi dañ ko war a xam d A à Z wërta am lu ñu leen ci nëbb léegi nag syndicalistes yi ak yenn Sénégalais yi dañoo bëgg ñu leeralal leen contrat bi jàpp naa ne loolu direction bu Sénélec waa Akili war nañ cee mën a trouver terrain d'entente ñëpp war nañ cee d'accord su dee Akili leer na ko ne lim signé Séné njariñu Sénégal ma ngi ci njariñu Sénélec ma ngi ci warul bañ maanaam corps de contrôle lu càmbar contrat bi Sénégal yi xam lan moo ci nekk su dee direction générale bu Sénélec lim signé lu neex Sénégal yi la lu baax ci réew mi la. warul bañ Sénégal yi sàkku ak leeraange am ci ñu leeral mbir yi kon loolu lañu amoon ci lu ñu leen di wax ci contrat Akilee ak Senelec ñu leen di sant di leen di gërëm yéen yi nga xam ne saa su nekk yéen a ngi ci site internet bi di bawal info net. bawal info moo leen di jox ay xibaar yu gaaw te wóor ay journalistes yu xarañ te mën seen liggéey. baolinfo.net le portail du Baol sur le web. baolinfo.net man ngeen a abone sunu chaîne YouTube Baol Info.